monsieur le maire ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay. ñu ngi ñëw fii fekk làkk bi ñu ngi la fekk aussi sur le lieu lan nga ñu ci mën a wax. bon dañ ñu toog sànq ñu wax ñu ne euh, gazon synthétique bi muy ngi lakk gazon synthétique bi nag US Ouakam moo ko moom ça fait euh, quelques années mu nekk fii depuis euh, mi 2019 ñu ngi doon xaar benn terrain bu ñu ko teg donc euh, boobu léegi ñu ngi xaar tey rek lañ ñu ne. Euh, gazon bi mu ngi mu ngi lakk et puisque synthétique la donc lakkam day gën a gaaw ko donc moo tax ñu ñëw fi tey euh, heureusement riverains yi xale yi euh, ñoom ñëpp ñoo ñëw fay ko heureusement avant que sapeur pompier di ñëw di yeggali liggéey bi parce que circulation moo tax ñoom ñu xaw a tardé mais heureusement que bi ñëwee fekk nañ fi quand xale yi wakaam yi taxaw bu baax pour fay fay taal bi ak mécaniciens ay nekkoon fii ñoom montanari vraiment jàppale nañ parce que amoon nañ benn citerne ndox citerne boobu moo ñu jàppale pour ñu wàccee euh, taal bi donc euh, il plus de peur que de mal il y a pas eu de d'autres dégâts c'est du dégât matériels important parce que euh, synthétique ñëpp xam nañ dafa cher bon mais bon heureusement amuñu bakken bu si rot bon ñu sant yàlla te euh, bon am na ay dégâts matériels kër bi nekk à côté fumier bi xaw na ko xaw na ko muur mais bon c'est pas aussi catastrophique que liñ ko doon xalaatee mais bon euh, yàlla moo ko tuddee nii donc euh, l'enquête suit son cours xamuñu la moo tax mu lakk nag wax dëgg yàlla donc loolu moo tax waaw. Bon, quand même, c'est cher, parce que Koubi, euh, bon, lui, c'est l'ordre de, plus de 60 millions, 70 millions. yoo xam ne euh, rien que gazon bi euh, pratiquement bu ñu xoolee ak li ñu frais d'approche yi ak yëpp bon c'est un peu moins de cent millions yu nekk nii bon lépp lakkul mais quand même bon c'est des dégâts importants. Hmm. ba depuis mi 2019 quand même parce que dañ ko amoon fenn fu ñu ko doon teg ba la dernière minute affaire boobu xaw a yàqu donc léegi boobu ba léegi nag ñu ngi ñu ngi seet fan lañ koy teg mais euh, bon yàlla bante temps yi rek lañ am am nañu terrain ñu ngi ko doon pare pour teg ko foofu mais malheureusement bon nii la ko yàlla tuddee daal. comme ni ko maire waxee rek ah lii moom mooy li leen si wax rek loolu la woon xam nga ñun wakaam boobu ba léegi ñu ngi wut espace bu ñu mën a teg lii lii nag kenn xamul lan la lii daal moom noonu la ko ñiti gisee daal mais tamit xëy na dina am ay enquêtes yu ñu ciy def xam nga pour ñu xam lii ñan ñoo ko def parce tamit boo xoolee tamit. yaa a beaucoup de choses fii Ouakam fii dafa jaxasoo am na affaire yu bëri yoo xamante ne xam nga mu ngi si yooyu yëpp tamit mën nañ ko si mën nañ si dañuy ñaaw njortu quoi lu nekk tamit xaj na si affaire yooyu xam nga mais tamit bon lii mais daf ci bëggoon def loo xam ne tey Ouakam tour jeunesse jeunesse Ouakam bi yëpp gis si seen bopp mais yàlla baax na dina baax leneen dina ñëwaat lu gën lii lii ay kii la rek mais dina baax. yàlla baax na daal. dernière question question sa xel dafa dem ci ñëw ciblé wala ci ñoo xalaat ne mun nañu. non non non ciblé wuñu kenn ciblé wuñu kenn ndogal la ndogal la quoi lu waroon am la am na noonu la sax lu waroon am la ndogal yàlla la nañ jàppee ne ndogal yàlla rek mais ñun xam nga du ciblé wuñu kenn accusé wuñu kenn waxuñu kenn moo def mais comme ndogal la nañ jàpp ne ndogalu yàlla la rek comme ni ko suñ maire waxee. Euh, xëy leneen lii di ñëw mooy daax daal waaw lii di ñëw mooy daax. amul kenn ku si génn àdduna looloo si mat a yàlla euh, li fi yàqu nag matériel rek la te na bëri tuuti macha allah waaye nit ku demoon moo doon gën a jafe. toog nañ suñu kër gis muy saxaar saxaar si metti lool soo soxna oo ñu ne ñu kaay ngeen xool lu am fii ñu daw foogoon nañ ne sax yum yum bi la après si lañ génn gis ne fii rek ñu daw ñëw foogoon ne benn kër la nekkati du kër. fu ñu denc ay bagage la mu tàkk mais heureusement que laalul kenn daal loolu la ñuy sante yàlla amul kenn ku si gaañu waaye nag alal yàqu na fi nag waa benn xale nag moo ko gis xale bi dëkk si ginnaaw en face moo gis muy tàkk nii muy jog moo magam nekk kaay xool fii mu ngi tàkk dafa mel ni dañ ko taal. après si la xale bi dawee ñu ñëw xool gis ne mënatuñ si dara boobu setee trop tard commencé di jàpp comme que ay synthétique la te synthétique ku nekk xam ne matière bi ni mu demee tàkk bi nag commencé di jóg. ñu daw ñëw bi ñu ñëwee amuñu benn pexe buñ ko fayee ñuy xool sotti suuf sotti ndox ba yàlla dogal ay mécaniciens yu nekk fii yoo te ne ay juif lañ yor auto citerne ñoo ñëw indi seen auto citerne si la xale yi duggee si biir ñuy fay di fay di fay ba fay ba sapeur pompier ñëw mottali liggéey bi nga xam te moom moo si des noonu daal la demee mais daal tàkk bu ndaw la woon mais dafa gaaw trop parce que matière synthétique la moo tax. salaamaaleykum lakk bi moom métti na ñëpp man doomu Wakaam laa. man góor pire la man bu ma doon bu ma nit digaloon pour dama dafi lu ñaaw bu ma xoolee na doomi gor la du ma dem di ka def te lii kuy doomi góor waroo kaa def Aziz Gueye Aziz Gueye nag yàlla moo ko fal ta bu soobee yàlla dina dem sa kaw sa kanam te liñ koy séentoo si wakaam yàlla mu ngi ko teg loxo te day dem bu soobee yàlla kenn du ko téye. d'accord yow jàpp ne incendie bi sabotage la. lii sabotage la taal ba pare daggat saako yëpp mu këpp ci suuf. lool loolu bu dul waaw bu tàkkoon tàkk sax ñu ne dafa tàkk rek mais loo xamante ne dañ taal ba pare daggat saako yëpp mu këbb si suuf lool loolu loolu sabotage la. bu ñu def lii pour xale yi lañ mais avec ça ñu xool synthétique boo xam ne mooy nañu xool si xale yi ndaw yi sax moo gën parce que ñu fubalatuñu ñu fubalatuñu xale yi ñooy fubal amatuñ ban bu ñuy gérer lii lañ amoon pour yaakaar fu mu ne boobu la ñu ngi koy ñu ngi koy a ñaxtu dañuy dem stade yoo xam ne kenn xamul lan la. mais nag kon nañu jàppale si loo xam ne ñu lal ko sax pour xale yi mën a fubal pour xale yi mën a fo buñ foowul sax xale yi mën a fo te yàlla rek tax. Hmm? jubóowu leen ci côté sport fii ci ne dafa mel ni jubóowu leen ci côté sport fii di fii ci Wakaam. waa sport dina suuxee parce que amuñu euh, ñu terrain boo xam ñoo ko moomal suñu bopp dina suuxee dangay dem da ngay dem euh, Pikine day metti si ñun. tey buñ joué buñ naree joué wax port ñu ñaar ñooyam si stade bi par buñ naree joué Thiès FC ñu ñaar ñooyam si stade bi parce que du loo xam ne ne da ngay recevoir sa biir dëkk tey boo recevoir fii day neex si yow mais nañ xool te yàlla rek tax ñu bàyyi xale yi foofu non non non non ñëpp la mënu du mën a lal diw la du mën a lal diw la parce que bu ma waxee diw la damay tooñ parce que jeunesse bi ñu war nañ mën a xoolaat si jeunesse parce que nawetaan sax pour ñu joué ka problème la parce que bu ñu génne temps ñun ñëpp dañuy fay taxi dinaa fay taxi dix mille wala dinaa fay taxi cinq mille ah wala wala quatre mille booy dem Pikine di seetaan ji football. mais bu ñu amee tey bu amee suñu terrain boppam li nga nar a dépassé di nga naan sa ataaya lëwal naan deuxième naan troisième doog a dem terrain seetaan football. bu ñu la dafa mel ne incendie bi dafa am benn genre sabotage même bu nekkee enquête bi génneegul dara. non du sabotage ma waxuma affaire sabotage waxuma affaire sabotage du affaire sabotage. bon bu sama taas sax duñ fi nekk naan dañ koy dund mais nañ xoolaat jeunesse bi nañ xoolaat ci xale yi mag ñi jàppale xale yi xale yi am mën fu ñu mën fooyee hmm. merci.